suñu boroom di ma gàttandoog tawféexi sëriñ bi boole ko ndimbalam nag mooy sama doxin ba agsi fii ma agsi tey di gën di jàng sëriñ bi rek topp ko rek ci sama xel ak sama xol ak sama pëseef ak sama jikko ma topp ko rek topp ko rek ba am ci tawféex ñeewuma kenn ci sëriñ bi ñeewuma kenn ci sëriñ bi waaw doomu aadama yi. ki leen bind xam seen mbir. leen bind képp xam seen mbir. waaye boobaak léegi. waaye boobaak léegi. junni at la ak ñeenti téeméer. junni at ak ñeenti téeméer du tegal. alxuraan a ngi fi. alxuraan ngi fi. sunnaa ngi fi. sunnaa ngi fi. borom xam-xam yi borom yi yaatal nañu. di ko di ko di ko ci liggéey. di ci liggéey. ba ba tey. ba tey. sàgganuñu. lu ñu war a wax lu ñu war a wax lu ñu war a def def nañ ko lu ñu war a wax wax nañ ko waaye waaye boo xoolee mbooloo mi boo xoolee mbooloo mi jullit yëpp jullit yëpp alxuraan moom yi alxuraan moom yi ak sunna ak coono yi boroom xam-xam yi li mu jëriñ ci nit ñi bari mu jëriñ ci nit ñi bariwul la coono yi bari bari li mu jëriñ nit ñi bariwul loolooy nekk loolu mooy li nekk. la cay dolli ku bon. la cay dolli ku bon. mooy. mooy. bokk sama bokk taalib yi am tawféex yi dëkk ci dëkk bi. sama bokk yi am bi bokki taalib yi am tawféex yi dëkk ci Tuubaa gii tawféex la. loolu dama leen ci wax sama xalaat. dama leen ci bëgg a wax nag sama xalaat. ngir laabiiri leen ngir laabiiri leen. ku am tawféex dëkk fii. ku am tawféex dëkk fii. nekk ci wetu Serigne Touba. waroo koo booleek dara waroo koo booleeg dara. bu dee looy wut. bu dee looy wut. sëñ bi noppi na ci sëñ bi noppi na ci. boo fi nekkee ci boo fi nekkee ci nekk ci nag ci na nga fi war a nekkee. sa dara du des gannaaw sa ah, boo fi nekkul na nga fi war a nekkee. waaye nag boo fi nekkul ni nga fi war a nekkee. ah loolu moom dañ lay bàyyi ak sëñ bi rek. Hmm? kon ci dama ko xalaat ni ma ko bëggee ni ko bëggee woon ci sama sama. sama labiré. kon ni ma ko bëggee woon ci sama labiré. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ñu dollee góorgóorlu ñu dollee góorgóorlu. xam li li ñu nekk mooy. xam li ñu nekk mooy lan. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. mooy sàmmonte ak borom dëkk bi. mooy sàmmonte ak borom dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. loolu jafewul a xam. xëy na jafe gi moo jafe waaye xam gi moom jafewul. ñi fi dëkk ñii fi dëkk. ñi am tawféexi dëkk fi. seen xel warut xalaat lenn. seen xel warut a xalaat lenn. luñ defee ne mën na leen a jëriñ ci àdduna. warut a am waruñ koo xalaat. sëñ bi sëñ bi war na leen doy sëkk. am mu te am xel mu dal ne. liñ namoon di ko wuti ci àdduna lépp dana leen fi fekk ak ñi nga xam ne ak ñi nga xam ne dañuy jóg jëm ci dëkk bi ak ñi nga xam ne dañuy jóg jëm si ci dëkk bi dëkk bi ku ci jëm dëkk bi ku ci jëm si sëñ bi rek sëñ sëñ bi rekk moo la fi war a indi moo xam dangay ngay moo moo xam da ngay siyaare si ngir yàlla loolu tooyaay bay boppam la moo xam da ngay ñaan si nag moo xam da ngay si nag say aajo say aajo yaag sëriñ bee kooku yaag sëriñ bee kon ku jëm ku ci dëkk bi kon ku ñëw ci dëkk bi koo mën a doon koo mën a doon waru laa séentu njëriñ fenn fu dul sëriñ bi waru fenn fu dul ci sëriñ bi loolu mooy li am loolu mooy li am kon nag maa ngi laabiire kon nag maa ngi laabiire ñii ñëw ci dëkk bi ñii ñëw ci dëkk bi te yitte tax leen a jóg te yitte tax leen a jóg jóg mukk buñ jóg mukk fee jëriñu defe ne mën nañ fee jëriñu ci dul yem ci sëriñ bi tudul yem ci sëriñ bi siyaare ko ngir yàlla ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ko seeni soxla ñaan ko seeni soxla lu dul loolu lu dul loolu warut ñu di ko wut si ci dëkk bi warut ñu di ko wut si ci dëkk bi leneen lu dul loolu ndax ku ko fi wut itam ndax ku ko wut itam <laughs> doo ko mën a am doo ko mën a am ci jamono yi weesu ci jamono yi weesu dama daa wax ne dama daa wax ne yoon wi sori na lool yoon wi sori na lool waaye dara yóbbuwu ko fa lu dul bëgg sëriñ bi képp ak doyloo ko waaye xamuñu sëriñ bi waaye xamuñu sëriñ bi dunduñu sëriñ bi bi nun ko gën a xam nun ko gën a xam di gën a mucc di gën a mucc a nekk ci lim bëgg sama diggante ak ñi nu séqal réew mi moo xam kilifay yi la xam kilifay diine yi la moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. ñoom li ma seq ak ñoom. li ma seq ak ñoom. ndax man kat. ndax man kat. taluma dara taluma dara. ndegam la ma weesu. ndegam la ma weesu. taluma ci woon dara taluma ci woon dara. yàlla dimbale na ma nag yàlla dimbale na ma nag. may may may dund ak ñoom maslaa. may dund ak ñoom maslaa. ak ci ñëpp nag nag. waaye fekk na waaye fekk na. taluma ci dara taluma dara. lu dul sëriñ bi lu dul bi. taluma ko. lu dul am ngërëmul sëriñ bi taluma ko lu dul nekk ci lu neex sëriñ bi taluma ko